un peu de, de, de, de rapidité. Il a besoin que le gouvernement fasse. cest à dans le discours par rapport À, la situation dafa mel ni tey rek euh, parce que ñooñu ay doomu réew mi la donc euh, président bi di nekk seen kilifa il doit répondre tout de suite. À, à, aux besoins, je la relativité euh, relativisation de Yacine mooy que ils sont en train de trouver une solution. Forcément. Maintenant, forcément, le problème, l'information, c'est que le président dit qu'on n'est pas dans les conditions de les amnistie. Mais peut-être qu'il n'a pas été très clair, mais forcément. moi, alors, si le président n'est pas clair, y' a un problème non xam nga lan la bañ ñu dugal si nopp sénégalais yi en tout cas. loolu dama si wax rek dem journée. Euh, que ñoom dañ si dégager seen responsabilité mun ñu leen dimbale non non non non non il faut il ah, faut surtout pas ne serait-ce que pour ses parents yi nga wax sànq nii parce que tamit foog ñu dalal leen seen xel. te ñun ñoo fi ñun ñoo fi nekk nest pas kan moo war a dalal suñu xel c'est pas moi c'est celui qui dit et quand quelqu'un man mënuma lu dul wax ne loolu la wax maintenant ci li mu wax la ñuy tënk pour xam comment on doit faire aujourd'hui le président du Sénégal dans ce cas doit revoir sa façon de communiquer c'est peut-être un lapsus mais on reste con euh, vraiment euh, euh, confiant que le président Macky Sall ne délaissera pas ces jeunes Sénégalais qui sont peut-être partis pour se chercher que ce soit en travers les études les parents dalal leen seen xel réew mi ay doomu réew mi la ñu te ñoom euh, dinañ def li war ngir rek ñu ñibbisi ci jàmm te ñu des ak wér alors ñu daal di jàll rek ci ki nga xamante ni mooy Moustapha Cissé Lo toujours Cour des comptes nee na moom il demande des comptes aux, aux, aux autorités citées. Et à juste raison. Hmm. à ah, juste raison. Là, je suis parfaitement d'accord. <laughs> Parce que c'est l'argent du contribuable quand même. <laughs> euh, alors il est il est à ah, juste raison. oui. ba pare ba pare ba pare ak antithèse dafa baax. baax ah, tey jii nii bu président waxee bu ñu d'accord dañ koy wax d'accord ñu. Mhm. massa mhm. donc juste dire que euh, Moustapha Cissé Lo a raison. il a de fois raison te daanaka yey na ñu bari. Mhm. ñu mu bokkal moom de kenn tudd ko hmm? moom kenn tudd ko ñi ñu tudd la wax ne léegi nag nañ jàkkaarloog askan bi jàkkarlook nit ñi justice bi wax ak ñoom et cetera ñu leeral man nag damaa am benn <clears throat> surprise démb bu ñu ma waxee ne ma daal le président la République Sénégal mu ngi xool nu muy mettre en en place. li nga xamante ni mooy euh, on va dire euh, une commission boo xam ni mën na toppatoo li jëm ci wàllu rapport yooyu nga xam ni joxe nañ ko. Mm-hmm. alors commission boobu ñuy wax <laughs> objectif am mooy euh, maanaam toppatoo li nga xamante ni moo jëm ci dénonciation yooyu nga xamante ni def nañ ko ci autorité yooyu alors commission. ginnaaw bu ñu nee nag wala cour de contrôle yi corps de contrôle yi du moins wala cour des comptes joxe na rapport wala ay rapport daal di cité tudd ay nit dem sax ba ñenn ñi mu mu mu laajte information judiciaire auprès de du parquet ministère de la justice ci loolu la suite logique comme ni ko defee woon ci Karim Meïssa Wade defee ko ci Khalifa Ababacar Sall noonu lañ ko war a defee ci ñeneen ñëpp malheureusement on nous parle d'une commission pour saytu lan la ñuy saytu lu ñu contrôler ba pare ba joxe ay rapport léegi dañuy créer commission pour saytu et et encore cette cette façon de faire deux poids deux mesures boo xamante ni daanaka on cherche comme si on cherchait à disculper dégg naa sax maître Pape Sène di xamle ne daal mbir mi dañ ci war a tey Hmm? droit de l'homme yi d' accord ñu entre ñoom Seydi Gassama ak et cetera maître Pape Sène sunu xarit boobu dama am <clears throat> dama am tuuti tuuti kersa tuuti njaqare tuuti jaxasoo dans la mesure dafa mel ni ñun moomatuñ suñu réew dafa mel ni ñun nekkatuñu ci dëkk bu am yoon maam Sidi bu dee yaa ngi may dégg dafa mel ni nekkatuñu si dëkk boo xamante ni dafa am précepte ak principe am lu nu gëm si si loolu li muy woote loolu la quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf de sénégalais di woote. Mm-hmm. président bi ci boppam de la république moom nee na il est pour la bon mm-hmm. gouvernance mm-hmm. moo ko wax kon président la république du Sénégal Macky Sall kon dafay woote pour ñu doxal mbir mi ci yoon mais dans les faits quand c'est le même président qui parlerait d'une commission pour saytu loolu loolu amul saytu rapport yi génn na le président de la République il a un département ministériel chargé des affaires judiciaires le président instruit ñu toppatoo loolu amul débat bu fekkee dañu teg commission ne dañuy saytu la ñu dundoon ci commission enquête parlementaire bu la ñu doon wax ci wàllu cas Ousmane Sonko te waxuñu koon ci cas u Khalifa Ababacar Sall ça revient de suite mooy on va faire la même chose fexe nañu ba démb ñu génne ñu information daal di ne bon rapport bi muy tàmbali euh, en 2014 boobu fekkul woon Aliou Sall ci mbir mi et cetera et cetera on essaie de disculper les uns d'accuser les autres ça gêne et, et, et c'est puéril, c'est fatigant, c'est lassant. On n'est pas en train de revivre un peu le cas euh, Abdoulaye Wade, Karim Wade qui refusait que Karim Wade soit mise euh, à découvert euh, par Macky Sall au, à l'époque, euh, qui est maintenant actuel président du Sénégal. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre, revivre euh, une, une, forme euh, pareille de la chose waaw ah, boo waxee loolu da ngay mel ni ku wax wàllu despotisme mm. wax wàllu sam ñii sama ay njaboot lañu duma leen kenn du leen laal ñi duñu sama ay njaboot sama yoon nekku ci léegi loolu yow ci sa xel mu gàtt yow lan la la jox dafay wane ni newuñ ci dëkk bu am yoon newuñ ci dëkk bu jaar yoon dañu nekk ci dëkk boo xamante ni lu nu neex def on ne nous respecte pas on ne respecte pas les Sénégalais ki jiite réew mi ak ñi mu àndal dafa mel ni faalewuñ ñu sax si y a une daaw mm-hmm. daaw lañ doon dund le cas Assane Diouf heure bi daaw ñu ko doon dund avant les élections ñu naan saaga yeeg les injures ak nangam nangam man d'accord ma si ay saaga mais c'était une façon révoltée de quelqu'un de s'exprimer contre une situation tey. mais après même il paraît que justement même. c'est une parenthèse lui-même il y avait une anguille euh, il mais oui mais tey. Mm-hmm. vu la situation ou des rapports de corps de contrôle les plus réputés les plus respectés génn joxe rapport yu waroon génn 2014 2015 2016 ba 2017 ñu génn ñu 2015 2016 2017 rapport yi génn taqal nguur bu bees buy door a ñëw amul débat waa léegi nguur boobu su taxawee ni rapport yooyu malgré rapport yooyu waaw mais nañu gëstu nañu seetaan kon nguur boobu amul respect si ñun on aura beau chercher à ne pas choquer chercher à être super méga terrain discipliné et correct mais on se rend compte que ou des gens qui nous injurient mais second by second day by day minute à la minute ñu ngi saaga ci comportement ci acte posé d'une façon boo xamante ni exécrable immonde presque bestial. alors Jean-Paul Diaz moom nee na euh, il reste convaincu que le président Macky euh, se présentera pour un troisième mandat. Ah, il a relativisé cela maintenant foofu lañ toll asma bu dee foofu lañ toll bu dee toll nañ Sénégal deux mille vingt ñuy ñuy ñuy ñuy wax sachant que sunu papa boobu monsieur Diaz ku ci benn bokk yaakaar. doon dox ak xeex wàllu assise yi am nu mu ci tënkee woon ak nu mu nu mu ko dundee assise yi nationale yooyu nga xamante ni diggante ñaari tour yi ci le président Macky Sall door a daw signé ko <clears throat> monsieur d'accord la preuve bi ñu paree ñoom suñu papa yi Amadou Mahtar Mbow def seeni clause proposé dafa ne li ko si neex lay jël on a un président qu'on aime beaucoup bien mais doo la démarche pose problème à plus d'un titre ci fànn yu bare maintenant def na benn mandat def na ñaari mandat jarul guddal jeex na yàlla na yàlla may mu tam mu jeexal ko ci jàmm ak salaam may ñu ñëpp ñu fekke tal ko ci jàmm ak salaam mu organiser élection yu jaar yoon yu rafet dem ci jàmm ak salaam ka koy remplacer doon kuy ñëw di def plus que moom moom li mu jot a def lu baax li ci li ci jot a am kooku bu ñëwee dolli si loolu la ñaan yàlla bu weesoo loolu bu weesoo loolu amuñu lenn ñu si mën a wax tey ci wàllu euh, sortie suñu pape boobu Jean Paul Diaz euh, dans le sens où loolu warul sax nekk débat warul sax nekk lu ñuy. lu ñuy foowee warul sax nekk lu ñuy. warul sax nekk lu ñuy toog di ko waxtaan. maanaam léegi nag dafa nekk loo xam ne def nañ ko suñu xel ba léegi ñuy xool est-ce que possible na. dès lors qu'on commence à dire di natt di natt ba xam ndax Sénégalais na tey jii nii on est en deux déjà élection yi sore na. 2021 2022. 24 il y a il y a la CAN en incha allah il y a les Jeux de la jeunesse olympique il y a 2023 2024 rien que sur deux événementiels.